bataaxal yónnee ko ki nga xam ne mooy administrateur du parti pour démissionner ci APR yaakaar di ko xamal ne ko dama doon koo xam ne def naa fukki at ci parti bi yàgg ci lool yor ci ay ndomba tànk fii ci parce Parcelles Assainies mais fukki at yoo xam ne dama liggéeyal parti bi dërëmu kenn dugg ci bu ne social ñëpp na géy l'original du kenn koo xam ne aussi accompagnement mais li ñu def ci parti bi gërëm nañ parti bi parce que def nañu conseil municipal ci élection 2014 ci parti bi occupé nañu ay fonctions yoo xam ne maa nekkoon commission financement président bi ci parti bi aussi maa ma sa nekk coordinateur APR unité 7 élection yi passé maa nekkoon président communal pour organisation bi ci présidentielle 2019 sama génn tey du dara lu dul wax la li nga xam ne tey moom bëbët tey man ma dellu ginnaaw ci APR yaakaar parce que def nañ fi liggéey bu am solo assister nit ñi jàppale leen animer parti bi te loolu ñi ko waroon mooy ñi nga xam ne takkal nañ leen ay ndomb tànk mosuñu ko def ci parcelle ñi fi takk ndomb tànk la ñu war a liggéeyal président Macky Sall fii defuñu ko te loolu leer na ñëpp liñ fi jàppale parcelle bare na. ci wàll yu bari mais mosuñoo gis parti bi taxaw assister accompagner au contraire ñoom ñoo lay defal ay ndëgg sërëx ñoom ñoo lay xeex pour nga bañ a réussir looloo tax nag en 2008 ma teg sama mouvement bu naan génération originale ànd ak ñoom ci liggéey bi parce que yaakaaratuma ci parti boo xam ne tey ñoo la waroon a défendre ñoo la war a accompagner mais parti boobu tey ñoo lay xeex di la tegal ay ndëgg sërëx mooy li may wax amul benn soutien amul benn reconnaissance ci ñi nga xam ne ñoo fi ne dañuy liggéeyal Macky Sall au contraire parce que gis nañ ne seen poste lañ fi nekkal ñun ñooy xeex yor base bi di xeex ba ñu fal leen domb tànk bul leen fal leen domb tànk nañu war a taxaw duñ ko taxaw donc tey ne nag président Macky Sall xam exactement ñi mu takkal domb tànk parcelle nan la ñu téyee Parcelles Assainies solidarité amul ci parti bi pàcc bi li ko miine mooy ay xeex ay xuloo ay saagante yoo xam ne ba tey fi ñuy wax ay yéen mu ngi daw yéeg ak wàcc ci justice xeexante kenn joxul sa moroom cër mais nag espoir bi nga xam ne parce Parcelles Assainies yaakaar ko ci man def demande sociale dama sampal seen dënd parce que nag soo takk ndomb tànk parti bi mosoo laal xaalisu parti bi mais bilan social bi nga am ci parcelle du kenn koo xam ne am na ko depuis maire yi fi ma sa nekk looloo tax tey ma samp sama dënd depuis maa njëkk a déclaré ça fait deux ans et demi trois ans ne je serai candidat à ces élections parce que li ñu gis dalul suñu xel je crois que li ñu def ci parcelle ñenn ñi sax wax nañ génn nañ parcelle suñu wareef la en tant que nit parce que ku ne da ngay wax dëgg fa yàlla dangay ngay jaamu yàlla te ku ne dangay ngay jaamu yàlla nag di nga dimbali nit ñi nga nekkal parce que représentant sur terre suñu borom mooy nit ku fonkul nit da ngay politique da ngay te loolu la ñu gis ci Parcelles Assainies beneen mbir bi mooy du ñu toog di xaar ba ñu indilaat ñu cancer bi nga xam ne moo nekk ci parcelle muy maire bi fi ne di ko jiitalaat parce que daw na wàllu yaan def stratégie bu ne pour ñu teg ko jéemoon nag président Macky Sall ñu taxaw xeex ak moom dañu nangu nag parcelle souffrance bu mu ne pendant 14 ans mu nekk maire dundin boobu duñ ko nangu pour des calculs politiques pour des calculs crypto personnels pour des calculs électoralistes ñu jëlaat ñu maire bi muy cancer CPAD parcelle di ñu ko indilaat loolu xel xalaatu ko gën a métti ci mbir mi mooy que tey. ñi nga xam ne ñooy entretenir base bi si seen propre moyen parti bi yàgg na lool bu ñuy def seen réunion <laughs> duñ ñu convoqué yàgg na lool bu ñuy def seen réunion duñ ñu convoqué boor ki dem boo Ndiaye jeudi kilifa gi nag la ñuy wax parce que am na yoo xam ne moo ko bañoon nangu parce que ñii nga xam ne tey jii ñoo nekk di flirté ak yow ñoo la bëggoon ren di dem boo Ndiaye fii ci Parcelles Assainies def seen i résolution ne dañ lay génn parcelle. parce que nekkatoo la nga nekkoon robinet yi xaw na tëj avec de lobby ñu ne dañ lay génne booba ñun ñii ñoo ànd ak suñu ngor taxaw fii ci hôtel bi di xeexee yow ba ñu attaqué ñu. bu fekkee nag ne ñoonu tamit ñooy ànd di ñëwaat ci yow ci guddi di wax ak yow ñun ñii di jël suñu alal te kenn fekkuñu si au nom parti di liggéeyal parti bi ah ñun nag ñu toog jël suñu responsabilité te yàlla rek moo mën parce que ba may toog di jël samay décision si la yàlla wàccee la muy wàccee muy une très grande coalition boo xam ne tey taxaw nañ pour porter ma pour ñu xeexi maire bi jëli ko. ah yàlla day yaakaar naa danga koy gëm mais du doy mais danga koy wóolu gëm yàlla wóolu ko dama ne ba may jël ay décision maax ñi ma àndal coalition boo xam ne bu rëy a rëy a rëy ci Sénégal ñëpp xam nañ ko taxaw nañ pour porter ñu pour ñu jëli Parcelles Assainies waxoon naa ko sa njëlbeen ne leen président Macky Sall dañu wàcceex moom sunu alal suñu temps suñu ñàkk suñu lépp lañu def ba mu am ñaari mandat wàccoon na ñox moom lépp lañu def aussi pour que assemblée nationale mu gañe ko pour mu mën a développer sa politique wàccoon na ñox moom mais lii affaire gox goxaan la affaire lu nawetaan la du ñu seetaan lu ñuy indil ay puuba pour que tey jii ñu nekkaat ci lu ñu nekk duñ ko def. parcelle du souffrir ñëpp xam nañ ko parcelle ku feebar doo faju da génn hôpital ma Abdou Ba ngi nii ñëpp xam nañ jigéen ñu bari ñu ngi ciy loolu tey ku feebar bu ne la hôpital ma Abdou ngay jooy surtout jigéen ñi di mucc pas de radiographie pas de scanner pas de bloc opératoire morgue sax amul ci ci ci ci climatisation amul ci morgue bi dagg-dagg bu ndaw sax kenn mënu la ñëw fii au parcelle y a un problème qui est là. parcelle bu tawee kenn du génn stade baa ngi nii ñun ñoo fi xeexoon en 2016 ba état bi récupéré ko ba tey mu ngi nii suñu xale yaa ngi nii tey pour ñu fubal dañuy génn parcelle et des années suñu centre socioculturel bi ñu amoon nga xam ne ne lépp lañ ko doon def foofu ci centre bi ñëpp amoon yaakaar toog nañ ko maire bi fi ne bëggoon ko jox Auchan ñu xeex ak moom rajo municipal bi fi ne woon xale yu bari yéen journalistes yi xam ngeen Jàppoo FM ñu bari wax nga ko yaa ngi ne fa nga jaar ñu bari fan la ñu jaar pour des considérations politiques maire bi fi ne tëj na ko du tey collège municipal bii nekk ci wetu mairie bi pour des considérations politiques tëj na ko lépp lu baaxoon ci parcelle yàq na ko ah non monsieur le président <coughs> du ñu nangu ngay jël cancer u parcelle du ñu ko jiitalaat ci parcelle mënul nekk du ñu nangu aussi ñi nga jox ndomb tànk yaakaar ne ñu lay liggéeyal te liggéeyul la ñaar dërëm nay na ñoo jël tàngal mante fraîche andil ko ci parcelle balaa ñuy def dara fii day fekk ministère bi moo leen ko jox wala fa ñu nekk ñoo leen ko jox mais du ñu génn seen alal di ko def ci parcelle te bu ñu demee ñoom ngay recevoir ñoom ngay waxal alors que du ñu dara parcelle. man mi di wax day mosuma toog ak président mosuma ko nuyu mosuma laal dërëmu parcelle dërëmu APR benn leader moo tax ma je suis libre et autonome je prends mes responsabilités je prends mes décisions si waxtu di ñaan nag ñi nga xam ne ñoo nekk parcelle di xeexal parcelle saa bu parcelle taxawee ñu jël seen temps jël seen alal xeexal parcelle muy opposition locale bi fi ne kiy jiitee yàlla rek a ko xam mais ñaan nañ leen ñun ñëpp bàyyi suñu teer suñu yenn positionnement yi def benn parti rek muy Parcelles Assainies nañu boole suñuy doolee nga la waaye bu ne bëgg nañ parcelle nañu ànd ñun ñëpp bokk ndey bokk bàyyi parce que suñu métti ñoo koy fañol suñu bopp di ñeneen ñooy jóge fii di ñu ko fajal si loolu maa ngi woo responsable yi xamante nañ bu baax gërëm leen ñoom ñi toog ci taabal bi di ma accompagner am na ñu war a egsi di leen wax ne Gueye l'original from hard time nañ fi plus de 72 groupement de femmes régularisé au niveau de la chambre de commerce du Tchaahan. Remercier vraiment toutes les présidentes, vraiment, groupe Génération Originale, Mouvement bi tous les membres du mouvement, parce qu'au-delà des femmes, il y a les jeunes. Au-delà des femmes, il y a ce qui tey mënuñu ñëw waxtaan nañu wax ñoom diisoo ñoom waxtaan nañ aussi ak ñi nga xam ne ñooy jeunes yi ñëpp ñu ngi leen di gërëm si seen taxawaay gërëm Moussa Gningue monsieur le maire musa Gningue di responsable PS sa taxawaay rafet na lu tax PDS du moins parce que bu dul politique sax moom sama xarit la sama frère la wax dëgg fa yàlla teewaayu Parcelles Assainies la teew nee naa ci li ñu jëm mu ngi nii toog sama wet donc ci li ñu jëm ngalawaay nañu bàyyi coloration politique ku nekk fa nga far c'est très bien mais ci lu ñu jëm localité la nañu jiital localité bi donc benn parti rek la ñu gëm fii muy Parcelles Assainies di gërëm El Hadj Mbaye Niang et sa délégation mouvement doxal ci dëkk moom tamit muy jàmbaar di nit ku gore li ma def nii def na ko jamono yële parce que je crois que boo nekkee ci mbir te lan la war a jox muy considération joxuñu la ko di la xeex di la xeex nit nag nit nga des na am na fooy tollu na nga jël sa responsable donc ci loolu maa ngi ci félicité waat di la encouragé di nuyu le président Kaba di conseil municipal di responsable politique fii ci parcelle ñépp xam ko moom tamit parcelle moo ko ñor je crois xeex yu bari ñu koy xeex aussi masu see dellu ginnaaw te mu ngi taxaw di xeexal Parcelles Assainies vraiment di nuyu ñëpp ñi nga xam ne tayib mu ngi ci yoon bi di ñëw moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant si taxawaayam ci parcelle di gërëm vraiment ñi nga xam ne amoon nañ yéene ñëw te ñëwuñu parce que ñun lii ñu ñor rek mooy Parcelles assini li tax conférence bi neex ci man ma def ko ñu bëri yaakaaroon nan ne man dañ may jox dañoo nekk sama ginnaaw te yàgg naa ko wax yàlla moo nekk sama ginnaaw parce que looy def def ci xol ngir askan wi yàlla moo la ciy fekk si di ko waxaat ne ko lëkkaat incha allah dina def suñu campagne de xarafal xarafal mille personnes la ñu wax mais xam nañu ne ko ëpp daaw 1751 ren dinañ dem plus de 2000 pour jàppale askanu Parcelles Assainies